fii ci Gueule Tapée ci euh, atelier bu ñuy wax Doroba Galaam ma toog fekk soxna su ñuy wax Faat Baaba maa ngi lay fay bu baax a baax soxna si nag dama yow yaay kan. man maay soxna Aminta Bey mm-hmm. euh, dëkk Louga. Mm-hmm. di taalibe Serigne Touba. Mm-hmm. Ah, dëkk nag Gueule Tapée. li may yëngu lépp fii laa koy yëngu. waaw. kooku mooy soxna Aminta Bey nee na mu dëkk Louga nekk fii ci Gueule Tapée di yëngu ci atelier bu ñuy wax. Dorome Galam mhm. ñu nekk nag soxna aminte ku ne xam na ni. wit mars yëfu jigéen ñi surtout le 8 mars. Mhm. tey ñu fekk la fii ci fi ngay yëngoo. 8 mhm. mars daaw amul woon. daaw ji amul woon ndax li fi jotoon am. yéen lool noo ko dundee. waaw nin ko dundee Faat Baba metti rek la defoon ndaxte ñun jigéen ñi. ci lii dañuy képp ku ci nekk ca la nga nekk rek te nga. ñun nag yàlla def na ci ñaw lañuy yëngu. ndax la 2000 ba léegi ñoo ngi ci ñaw. yàgg nañ ci ñaw lool. kon bu amee lu nu gaar rek. day daal metti ak li fi jaar. le 8 mars nag yëfi jigéen la. te boo nee jigéen jigéen mooy lépp. jigéen nay ndey Mm-hmm. Mm-hmm. jigéen ay jabar jigéen ay jigéen ah jigéen ñi defe naan mosuñoo des ginnaaw mm-hmm. liggéey rek lañu xam daan doole moo tax bu amee dara li fi doxoon daf ñu euh, yàq suñu lépp nag waaye nag sant yàlla rek ba nekkee taalibe Serigne Touba. ba nga xam ne danoo am ngëm-ngëm ba lépp loo xamante ne dara daal lu mu manti metti metti metti metti mm-hmm. dañuy gëm mm-hmm. ndax ay taalibe lañu gannaaw yàlla ay yonantu bi mm-hmm. sëriñ Touba rek lañu lañu gëm sunu léppit nag lu Covid bii metti metti metti metti metti ñoo ngi doon sant yàlla parce que sunu ngëm-ngëm bi ñu am ci sëriñ Touba daf ñoo euh, xëcc ci lu bari ba nag ragaluñu dara waaye jigéen nag ku nu war sargal la faat baaba waaw wax nga ni da nga yëngu fii ci ñaw mm-hmm. ñaw bi da nga ko donn wala danga nga demoon jàngi ñëw indi say diplôme du ñaw mm-hmm. wala nu mu demee noonu waaw ñaw nag moom Faat Baba ba ma ci laajee dinaa la ci tontu mm-hmm. ndax mën naa la wax ñun ci giir gi ma bokk muy gën giir muy giir giiru ñeeño gi ma bokk man kon yéen ay bala mañ sa ngeen ñun ay bala mañ sa piir dëkk fan dëkk Louga diggante Louga ak Njaañ ak calaaga. dëgg la loolooy suñu cosaan. Mhm. waaye yàlla moo ñu xëcc indi ñu ndakaaru. dëgg la ah, ñu nekk fi nag. di ay bala may sa piir nag. Mhm. yoo xamante ne am jom rek lañ def. Mhm. mën naa la wax ne suñu giir gépp dañuy presque genn wàll gi dañuy ñaw. dëgg la waaye nag di suñu ginnaaw. ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax. Mhm. du julli ci Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu wér comme ni ma la ko waxee woon. dëgg taalibe. waaw ci suñu taalibe. Mhm. ndax ñun ñaw la ñu xam. Mhm. jigéen ñi dañuy ñaw góor ñi dañuy ñaw. waaye ñoo ngi ciy sant yàlla. bu baax a baax a baax. comme ni ma la ko waxee rek. ndax ñun suñu sant yëpp Serigne Touba la. gannaaw yàlla Serigne Touba rek ñun la ñu gëm. te ñu nekk tam ci weeru kasu rajab ñu nekk nag ci weeru rajab bi mm-hmm. màggali na mu dem ci màggal gi ba ñëw ci jàmm mm-hmm. suñuy baaw euh, suñuy xéewal di gën a yokk mm-hmm. nag di yokk suba suñu xëyee nag suñuy xéewal day gën a yokk suñu ceeb day niin <laughs> suñu soos day niin loolay waaye sëñ Touba loolay waaye sëñ Touba waaye sëñ Touba di ñeetaate mukk ci àddina surtout ma nag ñeeño gi ñu bokk ndax ñeeño ku nuy ñee la ñee du ñeeño du ñee kenn mhm. ñeeño dañ koy ñee waaye du ñeetaane mhm. kenn ku ci nekk li ci sa cër mhm. danga ko am di sant suñuy waajur yi bu baax ndax fàggul nan nu lu baax ñun nag Fatou Baba euh, ñëw rek lañu xam jigéen ñi nan leen dimbale waaw waaw xam nga waaw wax nga ni say waajur dañ leen fàggul bu baax a baax sant nañ tam sëñ Touba ndaxte kenn du moom ndax tànk kanam amul tànk ginnaaw dëgg la waajur yu baax yéen ngeen ay ñeeño bala mañ sa mm-hmm. c'est très important mm-hmm. ndaxte nit ki ci li nga nekk rek mm-hmm. da koy wane ba mu dëgg nee nga yaa nga dëkk diggante Louga ak ak Njaañ ak Calaaga macha allah wax li nga doon mu mu neex ñëpp loolu léegi ñu ñëw ci ñaw bi gis nga léegi àddina bi te 8 mars jigéen ñi bu njëkk ba dañ laa naan dugal ci kaar jox leen ay mbubb ak 2000 francs ñuy dem di tàccu ànd ak ministre yooyu léegi dafa mel ni waa dafa mel loolu dafa jeex waaw dégg nga nee na loolu jeex na mhm. kon léegi dafa mel ni jigéen ñi mhm. dañoo yeewu mhm. boo gisee nee naa leen 8 mars nee naa leen mars yëpp dafa waroon nekk weeru jigéen ñi yaa ngi dégg te nee jigéen ñi sax yàlla may na leen ndam nekk nañ ci Kazu Rajab muy mois de mars tey ji ku ne xam na ni Seydina Limam Almahdi woote na mu tombee weeru jigéen ñi kon ñun jigéen ñi war nañoo sant bu baax a baax yàlla fàggul nañu ñu war a góorgóorlu léegi ak fi réew bi xale yu jigéen te ku ne xam ne xale mooy doon mag. Mm-hmm. réseaux sociaux yi doy na waar. Mm-hmm. lu ne ñu ko ci waxante. Mm-hmm. xale yi di wane seen bopp. di wane seen bind te xale yooyu ñooy ëllëg si biir nekk mag. te yow jaar nga ci xale. wala nga ton fii Adja Aminta bee ma fekk ko fii. wala nga egsi fii. ci xale. yor nga njaboot gu jigéen. yor nga njaboot gu góor. noo leen mën a yore. ak sa liggéey bi ak nu mu mën a dundee. waaw Fat Baba loolu ba ma ci laajee dinaa la tontu. li ma la waxoon rek laa lay dolli. parce que ñun gannaaw yàlla bi nu gëmee Serigne Touba. Mhm. danoo yar suñu njaboot ñun ñeeño yi nag. Mhm. parce que xamuñu taxawaalu. Mhm. xamuñu dem xamuñu dikk suñuy doom dañ leen a yar. gis nga man mii di wax yow. mënoon na maa dem di aventure ji. waaye damaa toog yar sama njaboot. ndaxte réew mi dafa yàqu. Fatou Baba réew mi yàqu na. surtout maa instant bi ñu toll nii. réew mi yàqu na. lay wax ci réseaux sociaux yàq na réew mi de. ndaxte tey jii. Mhm. lépp lu xew. Mhm. ngi koy weer ci réseaux sociaux yi. saaga yi. Mhm. di saaga sëriñ si. waaw di wax lu bon. di def lu bon. di génne say cër. di def lu bon réseaux sociaux yi na réew mi. xoola ba da gis ñoo xam dañuy togg sax wala bu ñuy xuloo sax dañ ko wane ci réseaux sociaux booba la àddina bi yàqu. sutura. la àddina bi yàqu. ndax bu njëkk lu ma sa xew dañ koy waxtaane ci biirum néeg waaw bu njëkk ba penc ma bu tawee ñu dem ci penc mm-hmm. waaye léegi si lii ma gis mm-hmm. ah nanu defaruwaat mm-hmm. te yar suñu njaboot gi réseaux sociaux yàq na réew mi de waaw réseaux laa koy wax ak benn nit manaan ko yàlla la mu bindoon ba tey faru ko waaw nit ñee dikk yàq seen bopp waaye yàlla yàqul kenn loolu laa dama naan damay faral di wax man leen ku ne xam na ne altine ba tey altine la nekk. Mhm. waaye soo waxee ñu ne jamono moo sensé jamono nu sensé na. jamono sensé wul. kon ñu sensé. ña baaxoon ba tey ñi ngi baax. Mhm. ñi juddoo woon fu baax di def lu baax di xool ci seeni waajur ba tey ñi ngi baax. Mhm. te faat baaba jigéen surtout jigéen ñi. waaw waaw ndax lii bisu jigéen la. waxal te fii ku fi ku fi ku fi li ñu wolof di wax naan fii ku fi daanu sa ndey la ba max. te fii ku fi baax jigéen la jur. kon nag jigéen ñi war nañoo góorlu ci seen bopp. am fulla am jom. nangoo liggéey. te téye seen bopp. waaye jigéen wax nga lu am importance. waaw seen bopp. Mm-hmm. ndax fi mu nekk nii. Mm-hmm. ma waxaat ko bu baax maa ngi fii toog fii ak Adja Aminata Bey ci Gueule mhm. Tapée mhm. waxtaan bi xam naa dina neex ndax xam naa ne mu ngi waxee aal mhm. ànd ci waa 313 Aminata Aminata li ma gën a jaaxal wodd bi ak tey seen bopp xale jigéen ñi bëgg nañ matériel waxal mu ñun marché bi ñoo ko moom muy mag muy ndaw waaw xale jigéen ñi bëgg nañ matériel waaye gis nga la jigéen daan jar ba tey mi ngi koy jar jigéen dafay am valeur jigéen day valeur boppam. luy loolu ab valeur. am valeur mooy lan. Mhm. mooy téye sa bopp. Mhm. am sa dignité. Mhm. am sa ngor. xam fi nga bokk. xam yaay kan. xam nga léegi dañu foog ni valeur. moo yëre bu rafet. oto bu rafet. déedéet téléphone bu cher. déedéet appartement bu te fekk amul valeur. déedéet quest waxama ci valeur valeur la la valeur. valeur du yére yére du du euh, valeur. du oto. valeur. du kër mm-hmm. baat baaba bari na nit ñooy gis yoruñu dara te buñ génnee ñu naw leen ay jigéen mm-hmm. lu waral loolu lu waral loolu mm-hmm. fulla ja ak fayda ja ak jom ja